di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, lislaam dafa am nu mu tëddee am nu mu baaxoo yàlla dogal na Thiénaba ak tuuba kom ni ko Serigne Babacar waxe léegi rek dañu am kóllëre goo xam ni kóllëre gu rëy la gu yaatu mooy euh, lii alquran di wax ni innamal muminuuna ixwa fa ak bayna aqwaykum léegi yàlla dogal Canaba ak Touba am kóllëre boo xam ne bu dëgër la ñu ngi nuyu ki nga xam ni mooy xalif général di murit di sunu lépp di sëriñ Muntaxa Bachir Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi ci wér di ko andil nuyoob sëriñ Canaba sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu koy dàkkantele borom alquran yàlla dogal nag màggal gi di màggal goo xam ne bi màggalu sunu jur la sëriñ Abdul Xaadir ñëpp xam ko ci lislaam taxawaayam ci lislaam ak bëgg gu bëgg diine ak bëgg gu bëgg lislaam ah am ci nag suñu xarit boo xam ni ci këram lañ nekk muy Cheikh Bachir Abdou Khadir yàlla dogal nag ñu yàgg lool waaye muy koo xam ni adduna bépp xam nañ ko léegi ci mbaax ak yiw ak bëgg nit ak bëgg li mu doon mooy doomu soxna moo tax bu bis bi jotee toujours dañuy àndandoo ñëw fi ci ndigalu Serigne Thiénaba maa ngi ànd ak sama mag Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck di xalifab Serigne Mouhamadou Seck moom it Serigne bi di wëllëreem su bis bi jotee toujours dañuy àndandoo ñëw comme ni ko kilifa diine yëpp di defee euh, Serigne bi Serigne Babacar Lo wax na ko léegi. Euh, waa kër Serigne Abdoul Aziz Al Amin Serigne Abdou ak euh, Cheikh bas benn lañu ñu woon ndax dañoo bokkoon lu ñu bëgg. sëriñ Abdou léegi laa koy wax sëriñ Xalifa nit la woon koo xam ne kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte ci jëf kenn du ko fàtte ci jikko kenn du ko fàtte ci aw doxalinam mu doon koo xam ne ko mënoon defar la yàlla yàlla dugal ko ci aljana yi gën a kawe ñu ñëw fi nag di euh, jàppale sëriñ Cheikh Bachirou Abdoul Khadir ci li nga xam ne ñoo ko bokk waaw ko bokk waxtu wi saa bu jotee sëriñ Ahmed Saloum Nasrou bu ñu ko waxee euh, dañ ko naan loolu suñu mbir la ndax suñu mbir itam bu bu jotee noonu la Cheikh ba si taxawee soxna si daal loolu mooy tànk yi kilifa diine yi fi ñëw yëpp nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax kër gi suñu kër la képp ku fi ñëw ñun jàpp nañu ñun nga fi ñëwal ndax suñu diggante ak Cheikh Bass kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant ji fi ñëw ñëpp di ñaan ci yàlla yàlla yàlla dolli jàmm ci réew mi euh, nawet bi nga xam ne moom la ñu dugg yàlla yàlla def ko nawet boo xam nawet bu sedd guy lay doon lépp ñor ca barkeel ca bari ànd ak jàmm ak salaam suñu kilifa yi nga xam ne amuñu lu dul ñoom ñuy suñu kilifa diine yal na yàlla sàmmal ñu leen yàlla sàmmal ñu leen suñu mag ñi nga xam ne dem nañ yàlla yàlla yërëm leen ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yéen itam ñu ngi leen di sant leen gërëm. ñoo ngi leen di fay di ñaan yàlla mu nangu ñu ziar bi Abdourahmane Kounta laa tudd. porte-parole xalif général de Xaadir bu Njaasaan penc moo xam ni dañu ko bokk maam yu baax yi rëddoon ko yar ci njaboot gi te lépp di diine ak ngor ak jikko ju rafet loolu moo ñu boole bi ci des itam moo di suñu maam xaadimu rasul radiallahu anhu seqoon na kóllëre bu rëy bu mag ak sunu maam cheikh bu Mouhamed Kounta mi nga xam ne moo sañ ci Ndiassane loolu itam dem na yàlla di ko firndeel ci ay résultats sëñ Moustapha mu sëñ euh, Touba radiyallahu anhuma joxoon nañ ko soxna Fatou soxna Assou Kounta bu cheikh bu Mouhamed Kounta mu di ko denc xalifa bi nga xam ne aussi moo nelaw di alxaaji maam bu Mouhamed yal na yàlla yërëm ko bu baax te yërëm ñoom fa fekk moom itam jëloon na ci kër gi di soxna Ami mbakke ba tey ay jarbaatam ñu ngi fii tey ci biir Touba loolu nga xam ni nag ay jëflante yoo xam ni yàlla def ko santaane mag ñi doxoon ko boole woon njaboot gi mu nekk benn ëtt di benn pénc loolu moo ñu boole ak sëñ Bachir Abdou Khader boole ñu ak bépp doomu soxna ñun nag tey la yàlla dogal ñu mës fi ñëw ndax suñu kilifa rahmatullahi alayhi di Ahmed Bachir Kounta moo fi daan teew daan fi teewal famille bi yëpp mais tey li yàlla dogal ñoo fi teew teewal fi waxuñu rek famille Kounta yi mais jàpp naa ni bépp doomu soxna bu fi ñëw rek umma islamique bi yëpp nga fi teewal waaye askanu Sénégal aussi nga fi teewal donc ñu ngi am kontaan bu baax di yaakaar ci ni góor gu baax googu nga xam ni sëñ Abdou Khader Mbacke la nekkoon na boo xam ne élément bu amoon solo la ci diine ji ak ci réew ñetti jikko it xamoon nañ ko ci moom nekkoon na ko xam ni ku mu sëqaloon ku mu seqaloon ab diggante ngeen jëm ci yàlla moo la ci man loolu wàll la woo xam ni nemmeeku woon nañ ko ci moom bu baax nekkoon na itam koo xam ni ku mënoon a xeex ak bakkan la moo gënoon a soxor ci bakkan ak ku mu mën a doon ci àddina ndax bakkan dafay mbartal nit di ko dugal ci kàmb waaye nekkoon na koo xam ne oyofaayam ak modestie bi nga xam ni moom la yore ak xam boppam foo ko fekk mu toog kenn la ci biir nit ñi. donc yooyu ñetti jikkoo ràññeeku woon na ci sëñ Abdou Khadre ba tax na ku ko gis mbaa nga dégg ko wala nga gis ku mu jur sa xel dina dem ci jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jikko jikko yi nga xam ne moom la lislaam digle kon ci kàddu famille Kunti yëpp nag ci kàddu xalif bi ci kaddu ñi nga xam ne ñoo bootu ci askanu Kunti yi ñoo ngi delluwaat di ndokkeelaat suñu bopp waaye di ndokkeel sëñ Bass Abdou Khadre di ko ñaanal itam yàlla yan bi ko yàlla yan te ñu am ci moom yaakaar askanu Touba ak askanu Murit yëpp am ci moom yaakaar ak réew mi yàlla bu mu ci fakkastan loolu rek moo nekkoon tànk yi nga xam ni moo ñu indi di indi nag nuyoo boo xam ne ak ndokkeel boo xam ne ci famille Kounta yëpp la jógee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ndiassane mi ngi nii toog. ñu ngi dalal Serigne Mouhamadou Mahfouz Mbacké. Serigne Mouhamadou Mahfouz Mbacké. ñu ngi koy dalal ak seen léegi ñu ngi koy dalal yegg si na léegi. Serigne Cheikh Tidiane Seck bu Thiénaba. Serigne Cheikh Tidiane Seck bu Thiénaba. mi ngi ci mbooloo mi. mi ngi ci mbooloo mi. ànd ak El Hadj Madické Seck. ànd ak El Hadj Madické Seck. Serigne Mohamed Cissé. Serigne Mohamed Cissé. di doomu Serigne Moustapha Cissé Pire. di doomu Serigne Moustapha Cissé bu Pire. teew na fi teew na fi. Serigne Modou Ngom. Serigne Modou Ngom. nekk Serigne Modou Kara Mbacké ci Thiès. nekk Serigne Modou Mba sëñ Modou Kara Mbacke ca Thiès. ànd naag taawu sëñ Modou Kara. ànd naag taawu sëñ Modou Kara. Seydina Ousmane Mbacke. Seydina Ousmane Mbacke. mi ngi ci mbooloo mi. mi ngi ci mbooloo mi. sëñ Ahmed Khalifa Niass bu Kaolack sëñ Ahmed Khalifa Niass bu Kaolack. teew na fi. teew na fi. Serigne Sidi Moukhtar Kounta. Serigne Sidi Moukhtar Kounta. Khalifa Baye Sidi Lamine Kounta. di Khalifa Baye Sidi Moukhtar Sidi. Lamine Kounta Lamine Kounta ca Ndiassane. mi ngi ci mbooloo mi. mi ngi ci mbooloo mi. Serigne Cheikh Ndiégène. Serigne Cheikh Ndiégène. teew na fi. teew na fi. njabootu Serigne Saliou Touré. njabootu Serigne Saliou Touré. ñoom ñëpp ñu ngi ci saal bi. Thioune Serigne Saliou Thioune di taaw Serigne Béthio Thioune di taaw Cheikh Béthio Thioune woo na ma woo na ma mi ngi ci yoon wi mi ngi ci yoon wi ñëw lee mu yegsi ambassadeur u Gabon ambassadeur u Gabon teew na fi teew na fi waaye na dafee teew waaye dafee teew wuy si la ci màggal gi wuy si la ci màggal gi waaye yëg la waxaale la waaye waxaale li la euh, waajtaay Masaalikul Jinaan waajtaay le 27 du mois de septembre di ubbi teeg Masaalikul Jinaan meeru Lambarna meeru Lambarna ak meeru Libreville ak meeru Libreville ak meeru Mayomba ak maire Mayomba ñoom seen ñoom ñëpp joxe nañ seen i confirmation ci invitation bi daanu ñëw teew ci ubbi tey jumaa jooju Serigne Jibi Soare Serigne Jibi Soare ak Serigne Mbaye Thiam ak Serigne Mbaye Thiam ñoo ngi ci jotaay bi ñoo ngi ci jotaay bi Serigne Babacar Pascal Dione Serigne Babacar Pascal Dione Serigne Dame Ndiégène Serigne Dame Ndiégène sa xarit le député sa euh, Demba Diop si sa xarit député Demba Diop si mi wal Moustarchidat délégation Moustarchidine Serigne Mansour Ndione. ak El Hadj Malick Mbaye. ak El Hadj Malick Mbaye. ñu ngi ci yoon wi ñëw ñu ngi ci yoon wi ñëw. waaye sa xaritu bopp wa. waaye sa xaritu bopp ba nag. al marhum. al marhum. Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. Cheikh Abdoul Aziz Sy Al Maktoum. ah àddina yëpp xam sa diggante ak moom. àddina bi yëpp xam sa diggante ak moom. njabootam a mag. Sidi Ahmed si doomam. Sidi Ahmed si doomam ju tedd ko jiite a teewal ca Ndakaaru. da ko a waaye mu xat lu mu xat-xat. mënut a wuute jotaay bu tedd bi ànd ak say soppe. sa soppe sa xarit sa confident Serigne Khalifa Lo loo xam ne bëri na ne. nga xam ne bëri na loo xam ne. lu daan dox sa diggante ak sëñ Abdoul Aziz Al Amin. ci moom rek la daan jaar. muy nit ku baax muy nit ku baax. ku discret ku disponible. son excellence. son excellence. le président Macky Sall. yabal na fi délégation bu mag. monsieur le ministre ngi nii toog Karim Fofana. bu paree danañ ko jox kaddu gi. Mahmoud Saleh. Mor Ngom. léegi lañ fi jógee. président maître Abdoulaye Wade yebal na fi délégation bu mag président Madické Niang yebal na fi délégation bu mag président Idrissa Seck yebal na fi délégation bu mag président Sonko délégation ma ngi nii toog ñii teew ci mbooloo mi bari na waaye jotaay bee xat ca kilifa yi tënku ca li lay ci suuf bari moo tax nu yemale présentation bi foofu waaye Sénégal gépp uy si nañ la léegi nag nu jox kaddu gi sëñ Sidi Ahmed si. moom it moom it. jox na ko jox na ko. xalifa loo xalifa loo. na mu ko daan defee rek na mu ko daan defee rek. ndax xalifa su waxee. su xalifa su waxee. Tiwaawoon gépp wax nañu. ndax mu moom ñoom ñëpp la fi teewal. xalifa bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Cheikh Mouhamadul Bachir. ñu ngi lay nuyu bu baax. di la masawu di la ndokkeel. di ànd ci nuyo bi ak massaw bi ak ndokkeel bi sa njabootu maam Cheikh Al Hadj ba ca Tiwaawan ca ka nekk ca bopp ba di alxalifa ak bakar Aboubacar Mouhamadul Mansour jaar ci ki yor kàddu kër ga di sëriñ Pape Malick jaar ci Al Hadj si Maodo wàcc si ba ci sa njabootu bopp di njabootu Cheikh Abdoul ci si Al Amin ca ka nekk ca bopp ba di sëriñ Babacar. ànd caag rakkam yëpp ak Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne amoon na yéene ren ñëw yàlla dogal xat-xat am Serigne Sidi Ahmed mii nga xam ni moom la la góor gi féetale woon daan ko fi yebal ci dundam ñu doyloo loola wéyal loola ñu yebal ko mu ñëw àndandoog ñun ak imaam alxaaji Mor Mbay waaye nuyoo boobu li muy rëy rëy ñu ngi ci boole nuyoo kilifa diine yi ji fi teew yépp tabaarakallaahu ñoom ñëpp teew nañu sëriñ bi dafa mel ni li arab yi wax lisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqaal moo dal ñëpp tey mbégte bi xaal yi yëg moo gën a dëgër bi ñuy wax ci làmmiñ yi mu mel ni ku fi toog rek boo ja xoolee kanamam diñ ci liir ni kontaan na bég na loolu yëpp nag li ko indi mooy sa yitte ak sa taxawaay ak sa tàllal ñëpp loxo maam alxaaji abdul aziz radiallahu anhu daf daan wax ni ku yëkkati sa loxo ndeyjoor ni faalewuma kenn nee na yëkkatil ba ca des ni kenn faalewu ma waaye mbàkke sa jëfante këru diine ji rafet na yaa ngi ciy wuutu say mag ak say kilifa di jokkale di tabax di defar di rafetal ba mu rafet yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yàggal la yal yàlla kartanal la njabootu sëñ Abdou njabootu sëñ Babacar njabootu Cheikh ñoom ñépp ñi ngi feddali wëllëre woowu ak mbokk googu ak ànd googu ngeen àndoon di ko rafetal tabaarakallaahu li nekkoon sa digganteeg sëriñ Abdou sëriñ Ahmad junj na ko léegi rafetoon na matoon na kawe woon na ngir yàlla ak mbokk ak wëllëre ak jaxasoo ak xam ne it yéen a bokk mission nga daan coordonné moom ci yu bari di jokkoo moom ci xalaat ngeen di waxante xalaat di waxante. seet na mu gën a baaxee mu nekk njëriñu àddina nekk njëriñu Sénégal nekk njëriñu diine ji loolu mosuloo cee jóg ba sa mag ji war la gannaaw nga continuer di rafetal loolu ci njaboot gi ba tabaski ren gee ci mujj la nga daan seq ak sëriñ bi yëpp seq nga ko njaboot gi kon nag Mbàkke ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di la ñaanal ci turu njabootu Cheikh Abdoul Aziz ci turu sëñ Babacar ma nekk ca kanam ci turu njabootu Cheikh Alhaji Malick yëpp waaye ci turu këru diine yëpp ku jëloon ci ñoom sëñ Abdourahmane gi nii da nga wax lu gën a rafet lu gën a mat lii waaye nag lii la jataay bi laaj ndax ñi la soxla bare na ca mbir nag bu ko ñëpp bokkee nañ ko yewenoo ba lor bañ caa am moo tax Mbàkke li ñu bëgg a feeñal rek mooy nga xam ni diine ji senegal kontaan nañu ndax lii yombul saal bii tey Sénégal yëpp a fi daje. ndax ku ci nekk am na loo représenté saal bii tey diine jee daje ndax ku fi nekk ku ci nekk tey ci ñi fi teew teewal nga kilifa diine loolu nag sa jëfante la ak ñoom nga di ko taataan di ko namp ci sa kilifa gu baax gii nekk ci seen kanam di Cheikh Mountakha Mbacké yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla defal ko wér ñu teg nuyoom ak ziyaaram ci sa loxo teg ko ci lo nga tegal ñu ko ci loxoom ak njabootu Cheikh Ahmadou Bamba yëpp tabaarakallaahu ñun ñëpp ñu ngi àndandoo di sant di gërëm di feddali mbokkoo gi ngir yàlla ak wëllëre gi ngir yàlla ak ànd bi ngir yàlla yàlla ko yàlla saxal te yàlla dimbali la yàlla kartanal la wax ji mënoon naa gën a bari lii waaye lii la jataay bi laaj ñu yemale ko foofu ndax mënoon naa gëm ni soo waxee yow man ngaa waxaaleel ñëpp ndax yaay ga yaa dalal gan ñi waaye yaa yow it yaay ganale gan ñi tabaarakallaahu kon foofu la ñuy yemale suñu kàddu di la bàyyi nga waxaaleel ñu ñun ñëpp yóbbaale ñëpp géew yàlla yàlla fay ñu fayal ñu suñu maam yu baax yi yi nga xam ne ñoo liggéey lii ba mu mel nii tabaarakallaahu ngeen nekk fi rafetal ko ba mu rafete nii Seydi Ahmed ñi ngi leen di sant di leen gërëm yàlla yàlla kartanal leen dëgëral leen ñi ngi nuyu monsieur le ministre mi fi teewal président de la république di nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf macha allah di ci jiite sang bu tedd bi di sëriñ Bassirou Abdou Khadre di jël nag nuyoo bu di nuyoo président la république son excellence Macky Sall ñu ko yebal mu teew ci jotaay bi. di jiital ci nuyu Muntaxa Mbàkke mu ibu Cheikh Mamadou Bachir. ak njabootu Serigne Touba gi ne ci dëkk bi président digal nu nii su ngeen demee Touba na ngeen ma nuyu te ziaral ma Serigne Cheikh Abdou Khadre di xalifaam ca ànd ak ci bis bi di barkeel it ci bisu Serigne Abdou Khadre Mbacké Serigne Abdou Khadre Mbacké it doonoon ci lislaam ci ñun jullit yi ak murid yi nekk ci biir Sénégal ak réew ànd ak histoire bi sëñ Abdou Khadre kenn du ci jël si. président de la république nee na mi ngi lay nuyu ca di la ziar ca di la ndokkeel. di fàttaliwaat nag digganteem ak sëñ Bass Abdou Khadre mi toog. di ko sant bu baax ci taxawaay bi mu koy taxaw guddi ak bëccëg. ak liggéey bu rafet bii muy liggéey ci diine islam. di ko liggéey nag fii ci kër Serigne Touba ci wetu sëñ Mountakha. nee na ñu ngi koy rafetlu ca di sant cee ñaan yàlla sunu borom yàggal la fi. wax nag yaa njabootu Serigne Touba yëpp ni le président son excellence Macky yaakaar na ci kër gi ci Serigne Touba ak njabootam ak ñaan gu muy defaroo na ba àllaaxira di jiital ci ñaan gi nag mu ñaan ko yàlla réew mi di Sénégal sunu borom wàcce fi na bu yam mu gaaw ca neex ca nawet bi na ndox mi bari waaye bu mu yàq dara it ci réew mi nee na man mii nag di Abdou Karim di taalibe ci kër gi bi may tuut tànk di jàng ba nuge ni bi ma noppee yónnentu président de la république nag maa ngi yëkkati sama kàddu bopp dell delluwaat di ziar bu baax sama sëriñ sëriñ Bassirou Abdou Khadre di ziar waa kër sëriñ Abdou Khadre gi yëpp di fàttaliwaat sama laxasaay ak pas-pas bu bi nga xam ni moom la liggéey ci liggéey bu rëy bi ci kër gi. sëriñ Bass ah, monsieur le ministre nee na mi ngi lay seeree ni cofeel gu rëy gi mu am ci yow mi ngi koy fàttali waxtu wu ñaareel ba nag nga doon exemple ci ñoom ci nit di war a ànd kilifa. yàlla dogal it nga wane ci désintéressement te di ci sonn loon def ko ci biir yoon wi te seetuloo mukk ku ci mel ku ci bëgg li la rek yaa ngi ci di ko def boobu engagement ñi ngi la ci sant ci di ko jàngaat nag ci yow. di nuyuwaat mbokk yi ñu fekk yëpp nag di famille si sëñ Sidi Ahmed Sèye ngi nii toog ñuy daje man ak moom ci xew-xew yu bari muy def ay waxtaan ci di waxtaan yu am solo nga xam ne moom waxtu mu déggee kàddoom rek xel yëpp dem ci alaaji Abdoul Aziz Al Amin way juróomu tedd wa bii nii nag la famille Kunta di sant la famille Seck la famille Thiaj ke bàyyiwunu kenn ñi ma bokkal parti politique yi ci des yëpp it ñëw na ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. kaddu la. ak kàddu yi seede. ak kàddu yi seede. ak ngërëm yi. sëriñ bi nee na cant yi ak ngërëm yi. jëm ci sunu bokk jullit yu tedd yi fi teew yëpp. sëriñ bi nee na mi ngi jëm ci yi cant yi ak ngërëm yi jëm sunu bokk jullit yu tedd yi fi teew yëpp. di sunu mbokki Tiwaawan. di sunu mbokki Tiwaawan. di si Ahmed si. di mboolem ñi mu àndal. sunu mbokki Njaasaan. sëriñ bi nee ak sunu mbokki Njaasaan. ak sunu mbokki Ceneba. ak sunu mbokki Ceneba. ak sunu mbokki Kawlax yëpp. ak sunu mbokki Kawlax yëpp. ndax jóg gi ngeen jog sëñ bi nee ndax jóg gi ngeen jog ñëw fii ci Cheikh Mouhamadou Bachir. ñëw fii ci Cheikh Mouhamadou Bachir. loolu njabootu sëñ Tuubaa gépp ngeen ko defal. sëñ Mouhamadou Mahfouz Mbacké nee loolu njabootu sëriñ Tuubaa gépp ngeen ko defal. Eh, kàddu yi ci des. mooy kàddu yi seede. Serigne Mahamadou Mahfouz Mbacké ne mooy kàddu yi seede. jëm ci sëñ Bassirou Abdou Khadir. jëm ci Serigne Bassirou Abdou Khadir mi toog. di seede ci moom. Serigne bi nag seede ci moom. mooy mbégteem yoon wépp ak bokk yëpp. Serigne bi ne loolu moo ne yoon wépp ak bokk yëpp. ndax fi mu féete ay magam. Serigne bi ndax fi mu féete ay magam. tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. tàmbalee ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. ba ci Cheikh Sidil Mokhtar. ba ci Cheikh Sidil Mokhtar. ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi toog. ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi toog. taxawaay bu rafet bu ne mi ngi ko taxaw ci yoon. sëñ bi taxawaay bu taxawaay bu rafet bu ne mi ngi ko taxaw ci yoon wi. tax na kon njabootu sëñ Tuubaa gépp. sëñ bi tax na kon njabootu sëñ Tuubaa gépp. ñu ngi leen di seereel seen i cant ak seen i gërëm ci sëñ Basiru. sëñ bi ñu ngi leen di seereel seen i cant ak seen i ngërëm ci sëñ Basiru monsieur le ministre Abdou Karim Fofana. sëriñ bi nee monsieur le ministre Abdou Karim Fofana. ñoo ngi lay jotali ngërëm yi ak cant yi bokk yëpp. monsieur le ministre sëriñ bi nee ñu ngi lay jotali ngërëm yi euh, ko président Macky nga jotali ko président gis nañu ni mu jàppee Serigne Touba. sëñ bi gis nañ ni mu jàppee Serigne Touba. gis na xam nañ digganteem ak Cheikh Mouhamadou Mountakha. sëñ bi xam nañ diggante président bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha xam naa lu mu. digganteem ak sunu mbokk mi di sëñ Mouhamadou Bachir. sëñ bi xam nañ suñu diggante ak sunu mbokk mi ak moom ak di monsieur président kon nag ñoo ngi sant ñëpp. moom it moo ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. mboolem ci njabootu sëñ Touba gépp. nekk si bésu kon ñu ngi ko gërëm ci sant ci kàddu ak waa kër sëñ Touba gépp. asalaamaaleykum. sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërë ngeen def. am. am teel ma teel ma. directeur général bu bari. jox ko jox ko. ñëw na léegi. di taalibi ci kër gi ma di bokk yi mu seqal réew mi. di ay bokkit yu mu séqal dëkk bi te di leen ziyaare nag di leen ndokkeel ci bis bii nga xam ni bis la boo xam ni mun moom ak ko bokk ndax weesuwul màggal lislaam ndax kii ñuy fàttaliku tey aw turam ak jëmmam li ci gën a fees boo ko tuddee sa ci lislaam rek lay dem moo tax bu bisam bii xewee yéen ñii ñu ko séqal bokk ak yéen diine ji ca kenn ku ci nekk boo yónni woon ka gën a tudd ci sa mu doy ma sëkk ñoo ngi leen di jéggulu ci jataay beeg nii mu xate ndax bu ma sañoon dey ku fi yegg si ba nga am ak daraja jala yàlla jox nga war koo am ci dëkk bi soo ñëwee ci yataay bi mu yaatu ci yow lool waaye nag xam naa ni lii dana woyof ci yéen ndax li tax seen yéene ak seenu cofeel ak sama diggante ak yéen kon nag maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di tàmbalee nag nuyoo bi ci délégation bu mag bi bàyyeekoo Tiwaawan te daan ko def nag naka jekk ci ci ndigalul sunu mag ju baax ja di sunu xarit di sunu soppe di sunu wëlëre ni Sëriñ Abdul Aziz Al Amin moomee nga xam ni ku tudd waa kër sëñ Abdou Khadr màggaluk sëñ Abdou Khadr ku ko tudd rek sa xel dem ci moom ndax taxawaayam bu sell ba sunu xel du ko fàtte mukk sunu xolit day tooy waxtu wu ne ci jëman ju tedd ja ndax taxawaayam bu rafet ci lislaam taxawaayam ci réew mi mu doon jëmm joo xam ne itam loo gën a jaxasoo ak moom di ko gën di sopp ndax jukko yi sell yàlla dëxañ ci jëmmam ju tedd ja ca nag mu liggéey lu bare bare bari ci këri diine yi ndax ca jataay mel nii ndax suñu kilifa yu baax ya lu ñu ci mas a def rek moo leen ca doy moom lañ ko daan àndal ba ci Seex Sidi Waxtaar Mbàkke ba mu fi bàyyi ko daanaka la àddunaam tukki ndax cofeelam ci moom ak wéetaayu xol ci moom kon nag bu fi bàyyi ko njabootam gu tedd googu mu bàyyi ganaaw ci njaboot ci njiital sëñ Babacar si ak sëñ Moustapha ak Sidi Ahmed mu baax mi toog sama wet nga xam ni moom la sëriñ bi ni yónni féetale ma ko ci bis bi ànd ak suñuy xarit sëriñ Xalifa Lo mu baax mee toog nga xay sama diggante ak moom ñëpp xam na nañu ko ñi ko Ahmed waxee léegi rek noonu rek la demee ak mbooleem délégation yi l'islam yi bi teew yëpp di leen yóbbantewaat beneen nuyoo ci seen i wayjur Serigne Babacar Sy mii nga xam ne tey mooy xalifa général des Tidianes di ko ñaanal moom itam yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér jëte teeg sëñ Pape Malick Sy mii nga xam ni moo fi jëm Serigne Babacar Sy nekk ci bopp njaboot gi ak Serigne Maodo Sy di jëmmi Alaaji Abdoul Aziz Sy ak njaboot gi yëpp di nuyuwaat nag mboolem këri diine yi te xam naa ni su ma ci duddee sëñ Abdourahmane Kunta mi toog yaakaar naa ni moo ci mag ak sëñ Ahmed Khalifa Niass ak sëñ Cheikh Tidiane Seck ñu bàyyi koo cene ba ak sëriñ ma dikkee ak ñu mu àndal ñu yépp nag ñu bàyyi ko kër maam Cheikh Ibrahima Niass ak sunu wayjur Cheikh Ibrahima Niass ak sunu wayjur sëriñ Khalifa Niass ak mbooleem yeneen këri diine yi yi bàyyi ko laayeen ak ñi bàyyi ko ci association islamique yi ma kenn di nuyu nag sunu jàmbu tedd bii nga xam naa ni ab añ dong ko fi indi muy sëriñ Modou Mahfous Mbacké te di ko sant bu baax ci déplacement beeg toog suñu wet ndax moom sama xarita gannaaw bi ma bokkee moom li nu yàlla boole ci bokk ma am ci moom nag cofeel gu rëy maa ngi koy sant bu baax moom sax laa bëggoon a jox yoon yi mu sànnil ma ay kàddu di nuyu nag mbooleem ñi fi teewal. le président de la république son excellence El Hadji Macky Sall ñu fi teewal président Macky Sall yëpp maa ngi koy teg sama nuyoo ci loxob Abdou Karim mii toog ak mboolem yu yi mu yu ma ci kenn ak ñeneen ñi fi teew te nu tuddoon leen léegi bu ñu tuddee le ministre Mbaye Ndiaye ak ñi fi jiitu woon ndax boo xasee dugg ci lim rek da ngay juum. waaye ñu ngi nuyuwaat ak Abdou Karim ndax lii ñu fi waroon a leer ak digganteeg moom lépp El Hadj Modou Mbaye na ko léegi ñoo ngi koy ñaanal yàlla sunu boroom dolli ko ndimbal ba mission bu sell bu rëy bi président teg ci loxoom yàlla dimbali ko ci ba mu def ci lu ëpp li ñu doon séenu ci moom am nañ ci moom nag yaakaar bu baax ndax jàmbaar la ku dëggu am na wu fit am na fulla ci li ñu ko dénk ca gëm na ko nag ndax ba muy tombeek ay reer bi ma koy indil ba muy togg moom ñii ay reer di ma ko indil ca Ndakaaru di ànd ak maam daam ñii booba yaakaar naa ne jeexalagul am njàng ci école ba kon pas-pasam ak jëfam ci kër gi du tey de maa ngi nuyu nag mbooleem parti politique yi fi teew ame tudd na leen léegi waaye ñoom ñëpp maa ngi delluwaat di leen sant te di leen gërëm seen teewaay bi rafet na lool mi ngi leen ciy gërëm di feddilwaat sama colère ak yéen lii nga xam ne moo dox sama digg ak yéen di leen sant ci déplacement bii ngeen déplacé yu ci bisu fekk si ma di sant nag mbooleem ku fi teew bàyyiwuma kenn ndax ne loolu daal su ko tegee ci loxo sëñ Sidi Ahmed si dana ko mën a jàllale ci bokki fi teew yëpp ba ku ne jël ci sa cër may ngi ñaan sunu borom li mu deele ci li mu digle ci dundal ak bokk ak jokk bokkuk lislaam yàlla na ko sunu borom sotti ci sunu jéego yi fayee ñu ko nee li ma bëggoon a wax ak lépp nag du fi xaj ndax jotaay bi gëm naa ni métti na ci yéen xam naa ni cofeer rek ak yitte moo tax ngeen mën koo supporter waaye kon mooy jaaxale foofu kàddu yi rek di yóbbante ci seen kilifa yu tedd ya yi ngeen fi teewal jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu mbàkke nanu ko ñaanal nanu ko ñaanal yàlla bu mu fakka salu yàlla na yegg neew yoon benn pakk bañ koo fiyeen sëriñ bi yaay ñaan kàddu gaa ngi noonu na ñëpp nangu amin